بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين mbokki jullit yi mbokki gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayiduna muhammad julli ci ay ñoñam ak i saxaaba dellu neen ci kàttanu yàlla ak mbaaxam tabaarakallahu tey ñu fas yéene waxtaan ak yéen ci istuwaaru sayiduna ibrahim alayhi salaam comme ni leen ko jige woon يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن آر فكشاذ ابن سام ابن النوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم يعني ني بند شي استوار بند نونو ني سيني ابراهيم توب اي بايم اكي مامام ba ca sayiduna nuux alayhi salaam ñu ne Ibrahima azara moo ko jur tur woowu moo ñëw ci alquran waaye soo demee ci tawreet am na beneen tur bu ñëw ñoom neneen Ibrahima taarix moo ko jur wante comme ñun ay jullit lañu duñu ay yahut li ñu mën gëm moo di ne Ibrahima bayam mu ngi tudon azara ndax so démé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahim li abihi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin kon aaya boobu dafay wan ne baayu Ibrahima Azara la tuddoon waaye soo demee ci téere yahud yi ñoom dañ ne baayam mu ngi tuddoon taarix soo toppee askanam dana dem ba jeexe ci yonent yàlla nuux alayhi salaam mu di juróom ñeenteelu maamam mu mel ni kon suñu maam Ibrahim moom lañu tuddee abul anbiya maanaam moom mooy bàyyu yonent yi yonent ibrahima mooy seen bàyyi ndax ñaari càllale yi moo tax ndax ismail moo féete woon ardu xijaaz ndax fale yaayam doon sëy loolu daneen ko jàng ci biir histoire bi ci ismail ci la famille Quraysh feeñ ci famille boobu la Seydina Muhammad jóge di gën ji yonent beneen càllale gi ñu nga féete woon ca ardu Kanaan ca baytul maqdis foofu Sarata moo fa doon sëy doon aawa suñu maam Ibrahim jur doom ju ñuy wax Isxaaq ci càllale googu la yonent banu Israil yëpp ci la jóge ba ci tabaarakallahu yaaquba mi nga xam ne moom la wax ne moo di israil ba tax ñu naan banu israil di ko askanale yahud yi te ñu ne yahuda doomam boobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud jóge kon mu mel ni càllale googu di sëtu isxaqa yi ñoo dem ba ca isa bnu mariam kon wàll googu yépp nag boo toppee seen askan dafay dellu siwaat ci maam Ibrahim kon nag dana am daraja ci ñu wooyee ko bàyyi yonent yi kon mu mel ni soo ci génnee saalix génne ci huut génne ci nuux génne ci idris da ngay gis ne ñi ci des ñëpp daanaka ñu ngi génnee ci banu israil ci kàccàllaleek suñu maam ibrahim alayhi salaam loolu tax ñu tuddee ko abul anbiya soo gisee nag ñu tuddee yonent yàlla nuux abul bashar dafa fekk ni dafa mel ni àdduna bi ci jamono yonent yàlla nuux dafa tukki woon ba beneen dund bu bees am ndax la dale ci suñu maam aadam alayhi salaam eh, nit ñi ci jotoon a am ba ci jamono yonent yàlla nuux mu woote junni atam yooyu mag manqué juróom fukk keroog ba mu jëppee aw nitam ba ñaan ba yàlla wàcce alkandeem ndox mu bari ma ba nit ñépp faatu am na ñu wax ne yonent yàlla nuux ñi ko gëmoon matuñu sax téeméeri nit ñooñu ba yàlla raxasi suuf si ñépp faatu ba mu des lim bu ndaw boobu ci kaw suuf ñooña ñëpp yonent yàlla nuux dafa taxawoon taxawaayu bàyyi ci ñoom ni aadama taxawee woon taxawaayu baay ca ña njëkk loola tax ñu tuddee ko abul bashar athani kon bu fekkee aadama mooy bàyyu mbindeef yu njëkk yi nuux moo di bàyyu mbindeef yu ñaareel yi waaye nag ibrahima moom itam am na daraja yi nekk bàyyu yonent yi loolu tax ñu tuddee ko abul anbiya نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء منيس إمام إبراهيم مجدو تدك بني وخ عراق مي إراك كي ملي بو خمني خرم مفسيو ديال بني جامو ñu daan sellalal xërëm yooyu daan ko jaamu jàppe woon ko seeni yàlla mu di ay doj yu ñu yett ak dénk yu ñu yett baayam nag mu ngi tuddoon aasara ñu ne menuisier woon boo xam ne la doon métier mooy yett ay xërëm di ko jaam yett ay xërëm itam di ko jaay ñu ne bind nañu ne baayam bi daan na jël xërëm yi di ko jox Ibrahima alayhi salaam pour muy dem ci marché yi di ko jaay su ko defee nag Ibrahim ci worma bi dox ci diggante wayjur ak doom taxoon na li muy bañ bañ xërëm mu jëloon xërëm yooyu doon ko jaay waaye suñu maam Ibrahim maandu gi nekk ci moom taxoon na itam muy wax dëgg ci marchandise am ndax dañ ne boo dee jaaykat sa marchandise bu ci lor nekkee wala sikk nekk ci nanga ko wax chemise bi ma lay jaaykat dafa fënax boo ko solee ñaari fan lay am mu xotteeku waaye chemise bi baax na lool maa ko jënde barab sàngam te nga xam sikk bi ci nekk boo ko jaayee def nga bàkkaar kon waxal sikk bi pomme de bi ngay jaay bu fekkente ni dafa am yu nëb yu ci nekk bu kon làq ci biir saaku bi tabarkalla ki nga koy jaay wax ko ne ko marchandise bi am na ayib noonu la ko lislaam bëgg mu mel ni suñu maam Ibrahim moom itam ayib bi nga xamante ni nekk na ci marchandise u baayam bi moom de mu ngi koy annoncé di ko wax jëndkat yi lu doon wax mu ngi doon wax ni man yashtari ma yadurruhu wala yanfa ana kan mooy jënd lu koy lor te du ko jariñ waaw nga bëxëram yi rek naan koy jënd lu koy lor te du ko jariñ wax na dëgg ndax li yàlla gën a bañ ci kaw suuf moo di ku ko bokkaaleel kon ku jënd xërëm bi pour fas yéene koo jaamu yaa ngi lor ci sa diggante ak sa borom waaw ndax jaamu ga njariñam ca jaamu ga njariñ nekku ca kon li suñ maam Ibrahim wax dëgg la moo taxoon nit ñi doon ko romb dañu nangoo jënd xërëm yi ndax foog ne ni xërëm yooyu xërëm yi ay leen buñ ko jëndee buñ ko dogalee seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg looloo taxoon ñoom itam ñuy daw xërëm yooyu bañ koo jënd am nag ñu jógee am nag ñu ñëw ci baayam boole kook moom ne ko sa doom jëkkat xërëm yi nga koy jaay day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ waaye am na beneen kéemtaan bu ci feeñ ndax Ibrahim alayhi salaam daan na téye xërëm bi bu ñëwee ba ci mbalkam ndox mu juutal ci xërëm bi ne ko naanal waaw naan ko ishrab yi naanal waaye loolu daf doon wan nit ñi ni e, ñoom ci seen bopp ñoom nit ñi dañoo dof ndax koo xam ne du lekk du naan du xool du yëngatu boo waxee ak moom du ko dégg nga tiim ko di magum jëmm ak sa sikkim sukk ci wetam di jooy di ko wax sa soxla loolu fala ak ndof yam tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawaalu dañoo feebar waaye dof yi ñu ngi ci biir nit ñi waaw mooy boroom xel mu ne yëng yori soxnaam te itam nga koy gis ci lu doy di nit yàlla daf ko jox xel pour muy xalaat moo tax yàlla ne mën waxuma ak dof yi waxuma ñi feebar borom xel yi lay waxal kon faatabiru yaa ulil albaab loolu lépp nee na xeet la rek ci xeetu yëjj bu ibrahima doon def aw xeetam wan leen ne dañu dof ci wàllu xalaat ak gisin moo tax ñu ne saala bi tudd ci téeréem bu ñuy wax araisul majalis ne bi nga xamante yàlla dogal na suñu maam Ibrahima war a juddu ci waxtu woowu am na ay jibarkat yu xam biddiw am xam-xamu biddiw ñëwoon ci buur boobu ñuy wax Namruus ndax jamonoy yonent yàlla Ibrahim dafa tombeek buur bu ñuy wax Namruus Namruus mi nag mooy modelu Firawna ndax kàccoor bu ne am na ko roy Namruus moom la Firawna doon roy Namruus ibnu Kanaan nii moo doon buuru baabil di babilon gisaanekat yi ñëw nañu wax ak moom ni ko ñun kat suñu xam-xamu biddiw daf ñu jox ne am na xale bu war a juddu ñu ngi koy wax Ibrahim du bokk ak yéen diine te dana dammate seeni xërëm ci jamono yi nag la war a judd looloo taxoon nag buur bi daal wax ne jigéen ju ëmb nen ko ko indil ñu indi jigéen ñi ëmb ñi yëpp mu dajale leen ci benn place tëj leen fa waaw lu tax la mu ca namm moo di ne ku am doom muy góor rekk mu rey ko wante nag jamono bi soldaar si di dajale jigéen ñooñu boolewuñu ca yaayu sayiduna sayiduna Ibrahim lu tax ndax bobu dafa nekkon xik manam dafa nekkoon jank boo xam ne dafa ëmb waaye ëmb ba taxul won mo feñ ndax daf doon ëmb bu ndaw lolo tax ba ñuy dajale jigen ñe mom ken jëluko yalla dogal jigen ñoñu lañu jur yépp muy goor ray nañu len yaayu ibrahim nak, mo mu ngi kërëm bayyi nañ ko fa ci kaw dogalu yalla ak namm namam ba nga xamante ni yàlla dogal na mat dikkal ko ci la génn nag ci waxtu guddi dugg ci benn grotte mu di benn xunt boo xamante ni soriwul këram foofu la nëbbu foofu nag la ko yàlla wërsëgalee doom bu baax boobu di Ibrahim nee mu bàyyi ko ci xunt moomu di ko nemmeeku di fa dem tabaarakallaahu di toppatoo ay mbiram ba yàlla def ibrahima màgg wax ne ne nag màgg na màgg gu gaaw wa bi mururi zaman wa bi mururi zaman nasiya almaliku ma qaalahu almunajjimun wa sakata an al amr fa xaraja ibrahimu min almagarati wa axtalata binnaas wa lam yantabih ilayhi ahad ñu ne nanu diiru jamono yàlla dogal buur fàtte na la nga xamante ni boroom xam-xam yooyu di ay gisaanekat waxoon nañ ko ko ci mbiru xale boobu war a juddu te tuddu Ibrahim mu mel ni yàlla daf ko ko fàtteeloo waxatul ci mbir moomu dara jamono boobu nag fekk na Ibrahima di waxambaane ci la génn nag ca xuntam moomu daal di jaxasoog nit ñi te kenn attiré wu ci sa attention mu mel ni Ibrahim ku ne xam na ne مجنى يالا بان لوكو خرم بانيل كو خامتيني بانيل كو جيغ نايولا موم يونس يالا ابراهيم مومني سوني ابراهيم لمو نجيكا مودي كومانسي دي فخيل خرمي وكان من عادة هؤلاء القوم أن يقيموا عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لي لتبرك بآلهتهم من بكنا كي آدي bi خمنتني nitu Ibrahima yi amoon nanu ko moo di ne at mu ne daan nanu amal benn feet boo xam ne ñu ngi ko daan defee ca gannaaw dëkk ba ñoom nag daan nañu togg ñam yu neex tabaarakallaahu ay ñamitu tukulóor yu neex lañ daan togg def ko ci seen barab yi ñuy jaamoo xërëm su ñu demee ca feet ga ba retourné nag daal di koy lekk wante keroog bi nga xamante ni seen feet googu jot na ca la Ibrahima alayhi salaam ne daal dana profiter occasion ci feet googu pour mën a def tabaarakalla pexe mi nga xamante ni laloon na ko yàlla dogal bi baayam di dem ak i mbokkam. mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama feebar te booba da don febar febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al min al xuraasi والرقباء أسرع إبراهيم إلى بيت عباداتهم فوجد الأصنام مصفوفة وقد تراكم الطعام إلى جرارها إلى جوارها وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من اسم إبراهيم عليه السلام ما خمنتني نت ندم ننو نيناناك تيرين بي فيد تي كانامم موم دونغ مو فا نيب دم ننو بايكوك دك nee na benn garde nekku fa kenn kuy surveiller mbiru yàlla yi nekku fa nee na foofu nag la Ibrahima gaawtoo daldi dugg ci seen biir jaamukaayu xërëm yooyu nee mu ngi fekk ñu ngi rangale xërëm yi nee itam ñu ngi teg xeetu ñam yi ci wetu xërëm yi nee na xërëm yaa ngi lu ndax mënuñoo wax nee na ñu ngi tëx ndax boo waxee ñoom duñu la dégg nee na amuñu ak yëkk ndax boo leen dompee duñ ko yëkk nee na itam amuñu xol ba duñu am lu leen naqari ak lu leen neex kon daanaka jamaadaat moo nekk foofu waaye nag xayawaan nekku fa luy dund daal nekku fa nee Ibrahima alayhi boobu jeune la nee na mu gëdd xërëm yi wax leen waxin wu xeebu tiimale leen lekk yi kenn ku ci nekk mu yëkkati lekk gi tiimale ko sa gëléem ci ci sa gémmiñ ne la ala taakuluun xanaa du ngeen lekk lekk leen xërëm yi ne tabaarkàlla yëng di leen di ko xool mu ne leen ah yàlla joo xam ne du lekk boo waxeek moom du ko dégg sama mbokk yi sëgg ci yéen rekk seeni temps seeni tabarkal alal ak seen coono seen lépp ñu jox leen ko te mënu leen leen a jëriñ ci dara foofu nag la Ibrahima gën a yokkoo ci ngëm mel ni yàlla daf ko yokk pas-pas ci gis-gis boo xamante ni am na ko mu di gis-gis bu dëgër foofu la jël benn sémmiñ jël xërëm yi benn par benn di len ko gor di dag sen loos ya dagen seen loxo ya daggin bu ñaaw ben xërëm yépp ba mu dess ben xërëm bu mak neena mu daal di jël nak sémmiñ wa daal ko koy wékk daal genn dem yoonam bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dugg nañu ci sen ya ñu fekk seen xërëm ya salfa ñoo ñoom ñépp daanu ci suuf lu tax ndax ibrahima alayhi salaam moo dog seen dop seen bopp ya yàq seen yaram ya daaneel leen bàyyi fa xërëm bu mag ba wékku ko semiñ wi nee na ñu ñëwee tiit nanu yéemu nanu yuuxu nanu daal di wax ni ma hada al balaa'u al kabir واو musiba bu reuy bi kan moko def وما هذه المصيبة العظيمة وما هذا الذي عدا على آلهتنا فأوردها موارد الهلك واو كان موديف لي سنو يالي ب سنو يالي دي كو تابل تي تابوايو الكاني كي ديف لي دي انه لمن الظالمين موم دي توغ كات لا كي ديف دي لابد ان يذوق وبال امره وعاقبه مكره كي ديف لي دال منول نياك موموس مصيبم مير مو نياو وي مو ديف اك ايتام مو جوك بخيم مي مو ديف نينا قال قائل منهم ام نكو واخ تي فتن يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد أن يكون هو الذي طاش عقله فاجترأ وفعل هذه الفعل هذه الفعل المنكرة أمك وقت نيومني دي قرنا بن وخمباني بني وقت إبراهيم موي وقت نيوم لنياو كوكو دالكو كونتر سنو يالليلة دفني خيب صخ xeeb gu rëy ci jaamu gi ñuy jaamu suñu yàlla yi damay foog ni Ibrahima moomu xelam moo dem ba tax mu am fit ci def jëf ju ñaaw ji suñu yàlla yi moo tax ñu ne mag ña d'accord nañu ci ne nanu jëli Ibrahima indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mag ña daal dem. indi Ibrahima te amuñu benn preuve ci moom lu dul rekk tuuma buñ ko sànni donte sax moo ko def ñu indi ko ci kanamu nit ñi pour àtte ko wante waxtaan wu neex dox na diggante Ibrahima ak nit ñooñu dàggasante boo xamante ni wax dëgg yàlla Ibrahima wax na ca wax yu wér lay yu leer joxoñ ca yoon wu jub woo xamante ni képp kuy boroom xel danga ci ànd ak moom loolu taxoon na ñoom ci seen bopp wedam nanu ndax Ibrahima bi ñu ko laajee ne ko ndax yow yaa def mbir mi waaw ndax yaa def mbir mi mu ne laaj leen ko xërëm bu mag bi ndax moom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñépp la nu gaañ ba mu des moom benn moom ci boppam moo ko def yàlla yi walla moom ci boppam fekke na ki ko doon def xam na ko laaj leen ko ah gaañe nag daal di xoolante ci seen biir loolu nag tabaarakallaahu xam naa am na ci ñoo xamante ni sax xam nañu ne Ibrahima convaincre na leen waaye nag nit su demee ba lu bon sax ci xolam doonte gis na dëgg sax day préféré jàpp ci lu bon loolu. waaw nitu ceddo dana ko def dana dem ba xam ne ak ceddo baaxul waaye nag du ci mën a génn yàlla dogal ba ñu xoolante ñu wax Ibrahima ne ko xam nga ni suñu yàlla yi duñu wax Ibrahima ne leen waaw naka ngeen di jaamoo loo xam ne du dégg du wax du yëg amul bët yum leen mën a gise foofu nag lañu xamee ni Ibrahima ah convaincre na leen ñu ne ñu ñoom ci seen bopp ñu wax ni innakum antum zalimun ah yéen kët yéen a tooñ gone gi gone gi defu leen dara moo tax suñu maam Ibrahim yàlla daf ko joxoon xikma te dañu wax ne wa man yu'tal xikma wuti utiya xayran kathira képp koo xamante yàlla jox na ko xam-xamu xikma jox nañ ko yiw bu rëy yiw bu bari kon ci xikma boobu la Ibrahima yaye moo tax alquran nettali ne Ibrahima daf leen wax ne afa tacbuduuna min dunillahi ma la yanfacukum cheyan wala yadurukum uffin lakum wa lima tacbuduuna min dunillah afala tacqiluun Ibrahima ne leen ndax dangeen di jaamu walis yàlla lu leen mënta jëriñ te du leen mën a lor ufin lakum waaye puus leen fële yéen a gàtt xel te ñàkk solo lu tax ngeen di jaamu keneen bàyyi yàlla xanaa amu leen xel moo tax mu ne ba nga xamante ni sonn neen ci ay pexe amuñu logique bu ñu mën a jàkkaarloog Ibrahima pour mën ko convaincre ci sukkandiku nag ci seenuk mbon ak seen doole pour gaañ Ibrahim moo tax ña gënoon a bon ca ñoom doon leen wax ni ne xarriquuhu wansuru alihatakum in kuntum faa'iliin ñuy wax naan gone gi dafa sob gone gi dafa yaradiku su ngeen bëggee mucc ci moom lakk leen ko su ngeen ko lakkee ba mu dee dangeen ngeen dimbali seen yàlla yi ndéem na may ngeen a ma ngeen a jëfandikoo suñuy xalaat ñu bon ña ca ñoom ñoo ko doon wax ñu ne commencé neen nag ba da u yanfiduuna makidatahum commencé neen nag fas yéene wéyal seeni pexe ca lañu dem nag taxan ay sa yu mat oo xam ne bañ ko dajalee xaw na toll ni montagne ndax matt mu bari lu ñu ca namoo fas yéene ko taal mu di taal bu rëy ñu sànni ca Ibrahim yàlla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tàkk bay jër jëri nee na ñu dànd safara si ndax safara si tàng na tàngaay boo xam ne kenn mënu ko jege wax ne ni picc lu mën a mën a naaw su rombee safara si dana daanu ndax tàngoor waak làmmiñu safara wu gudd wa neneen ci lanu indi nag ibrahima ñu ngi ko takk ci ay buum takk loxo ya tabarakallahu fas yéene ko sànni ca safara woowu ñu defar ak mbaq mu di espèce lance père goo xam dañ ko caa teg mu di mbaqu gu rëy ñu wëndeel ko bu mu xiir ñu daal di koy sànni ci biir safara sa Ibrahima dugg ci biir safara sa dugg gu biir koo xamante ni nit ñépp a ci teg seen bët foofu nag seen xel dal na ndax foog nañu ne tabaarakallaahu seen musiba jeex na ndax rey nañu seen noon toog nañu diir bu yàgg di xaar safara si giim pour ñu mën a nemmeeku yaxi Ibrahima ndax jàpp nañ ne lépp lu doon yaram ci moom jeex na walakinahum baada an hadaat niiraan nadaruu fa wajaduu Ibrahima fi jawfiha lam yamassahu suu gannaaw diir bu yàgg gannaaw ba safar sa gëmmee ñëw nu setantal waaye gis nañu Ibrahima ca biir safara wa dara laalu ko ndeke boobu borom bi subhaanahu wa taala moo jëflanteeg suñu maam Ibrahima ci yërmande akub mbaax akub ñeewante ndax danu wax ni lépp lu nekk ci kaw àdduna la nga yor ci pouvoir yàlla la ko abal saa su ko neexee mu nangu ko su dee paaka bi dagge la bul wax ne paaka bi moo la dagg danga naan paaka bee la dagg ci kàttanu yàlla ndax paaka mënuta dagg fekk yàlla abalu ko kàttanu dagg safara itam mënuta lakk fekk yàlla abalu lakk kon liy lakk ci safara secret yàlla la li dagg ci paaka secret yàlla la ñam wi itam la ci suural nit ki secret yàlla la ba tax na kon yàlla li fi nekk ci àdduna bi yëpp moom la représenté ku ci nekk rek am na mission bu la yàlla jox safara nag mission mooy lakke paaka mission mooy dagg oto bi mission mooy yóbbu la fi nga jëm rajo bi mission mooy tabaarakallaa buñ ci waxee wax bi matale waaye yooyu yëpp nag ci kàttanu yàlla ndeke ñoom foogoon nañ ne safara mooy lor ndeke yàllaay lor ba ñu jëlee ibrahim alayhi sànni ko ca safara wa yàlla diggal safara wi ne ko yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim yàlla nee na qul naa ñun ñoo wax ñun yàlla ne yaa naaru yow safara si kuuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemoon kon safara wa dana gën a sedd congélateur waaw te kon bu boobaa nag seddaay ba dafay rey ibrahima motax tax mu ne ko wasalaaman sedd bo xam da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugg ci mam ibrahim mu melni mu ngi ci bir néegam yalla ni ko kon yow safara si roccina sikray ci yow legi melal ni ndox ci ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam ibrahima nek ci safara wa tabaarakallaahu mel ni mu ngi ci biir néegam tëdd loolu kàttanu yàlla la ak mbaaxam loolu itam xikmaam la tabaarakallaahu am na e, ñaari nit ñu mas di waxtaan kenn ka ne ko safara du lakke waaye yàllaay lakke mu ne ko déedéet safara ci boppam mooy lakk waa ji ne ko man de am na loo xam ne tey jii su ma ko waxee ci safara wi su ma ci dugalee sama loxo walla ma tëb dëggu ko du ma lakk te loolu yàlla ma ko xamal moo ma ko jàngal waa ji ne ko def ko waa ji sukkandiku ci boroomam jëfandikoo secret boobu dugal loxoom ci biir safara wi lu tolloog fukki minit te lakkul mu ne waa ji yow jëlal sa loxo nga dugal ko ci biir waa ji ne ko su ko ci dugalee damay lakk mu ne ko waaw kon secret bi nga xamante ni moo tax lakkuma yàlla ma ko jox secret boobu nag safara wu ko yàlla rocci safara woowu du lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa moom mooy lore mooy jëriñe kon nak bur bi lore tay wara mom lañu wara jaamu motax baatu ilaha illallah soko ko firi da nga nan la ilaha amul benn bur bo xam jaamu ko njariñ la ñaka jaamu ko di lor illallah kudul yalla kon gis nañ ne safara wa ci ndigalu yalla nek na ci mam ibrahim motax ganau gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yéfer yu bon yoyu yooyu ku nañu safara sa gis né ne ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tëdd ci lal lalam motax ñu ne raawhu yudiu yudiu wajhu bil iman fansarafu anhu wa tawaaraw an ayuni nnaasi xajlin nee na biñ ne jàkk Ibrahima xool ko kanam nga leer naññ pucceerul pëndul yëre ya dara lakku ca tabaarakalla bantu wokk ko mu ngi ci biir safara wa mel ni ku nekk ci néegam nee na ñoom nag dañoo mujj ñibbi dañoo mujj itam di làqatu ñoom ñëpp rus ànd ak gàcce ndax lañu bëggoon yàlla sottalu ko loolu nag moo di jagleg yàlla ci ay yonentam ak ku mu mës a yónni ci jamono saa bu say noon jógee dañuy rus waaye duñ la mënal dara moo tax borom bi subhanahu wa di muñloo sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa daan ko wax naan ko ñii di la fexeel waa Màkka di la gaañ amoon na yeneeni yonent yi fi jiitu yoo xamante ni noonu lañu leen daan fexeelee pour bëgg leen a gaañ wante man yàlla ci boppam maa leen jàppale ñu gis ne euh, mbay ci sa wewu tànk suñu maam ibrahim alayhi salaam bi mu jógee di woote ci baayam la njëkke wax ak moom waar ko waaye teewul baay ba yàlla baaxewu ko ak ngëm ndax daf di ca dogoo xam dafa nuur ci kéeféer nuur ci jaamu xërëm moom la yàlla wax ne wa id qaala ibrahimu li abihi adara atattaxidu asnaaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin yàlla nee na yonent bi fàttalikul ba ibrahima waxee baayam ba di aadara ni kon ndax dangay nangoo jël xërëm di ko def yàlla yaag say mbokk yéen daal gis naa ne yéen a ngi ci cànkute gu biir ndeke boobu yàlla moo baaxe ibrahima wan ko secret yi asamaan ak suuf pour def ci xolam ngëm gu wóor gu ko wan ne jaamu xërëm ak alkande la jaamu xërëm itam tabaarakallaahu ak réer la moo tax Ibrahim bëgg a wan aw nitam ne leen lii ngeen nekk du dëgg mu bëgg a indim njàngale moo xam ne daf leen cay wan ne li ngeen nekk du dëgg waaye mu defe ko ci yar ak teggin waaw xam nga mu ngi mel ni Seydina Xasan ak Seydina Xuseyn ba ñu rombee waaja di jàpp góor gi di jàpp te njàpp ma baaxul dañu waxtaan ci seen biir ne daal naka lañuy def ba corriger góor gi te duñ ci wane ak yëwadi duñ ci wane itam ak yaradiku Asan ne ko damay jàpp su ma jàppee ba noppi nga ne ma sa njàpp mi daal dara baaxu ci nii la ñuy jàppee ma déglu la waaw su ko defee góor gi su dee ne boroom xel la loolu dana ko wan ne moom jàppam li dara baaxu ci mu mel ni kon suñu maam Ibrahim moom itam su dee wax ne biddiw yi ñooy sama yàlla ba jikki mu ne déedéet weer wi mooy sama yàlla ba jikki mu ne déedéet jant bi mooy sama yàlla jubluwu ci ne dafa mës a gëm weer mu di yàllaam wala dafa mës a gëm jant mu di yàllaam déedéet jubluwu ci loolu dafa bëgg jàngal aw nitam rekk jàngilin wo xamne dafa ànd ak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl raa kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al afilin yàlla neena na suñu maam ibrahima guddi dafa jot mu gis biddiw mu ne biddiw bi dal moy sama borom nee bi bi bëccëg jotee biddiw ba suux mune ah man dal yàlla ji sux dal beugumako kon ki nekatul sama yàlla yàlla ne fa lamma al qamara baadiran qala hada rabbi fa afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min qawmi daallin yàlla ne ginnaaw sigi guddi jotna tombek tombeek fukki fan ak jurum ci weer wi weer wi sëkk tollu ci badar moy fi weer wi maté ba mune ah weer wi dal, defena ni moy sama borom ndax mo gëna a bi diw bi diw bama gisoon yalla dogal bi eh, weer wa bi nga xamanteni becc ak jotna na wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma ndax yalla buy feñ di sanku dal di fàddu daal loolu moom wax dëgg yàlla doyuma comme yàlla yàlla dogal mu toogaat ba jikki xelam dem ci jant bi mu nemmeeku ko yàlla ne fa lamma raa shamsa baadiratan qaala hada rabbi hada akbaru fa lamma afalat qaala yaa qawmi inni bari'un mimma tushrikun ñu ne bi mu gisee jant bi jant bi ne fang leer gi matale gox yépp nee na ca la wax ne haada rabbi lii de mooy sama boroom ndax haada akbaru bi moo gën a rëy te leeram moo gën a mat nee na wante bi timis jotee gisatul jant bi jant bi dugg ba jax tàkk mu ne yàlla mbir mi kat doy na waar eey eh yéen sama nit man kat dañ naa ci mbooleem mbir yi nga xam ne nit dana ko jëfandikoo di ca bokkaaleek yàlla man daal yëg naa ci sama xol ni am na keneen ku ma moom kon nag boroom boobu nga xam ne moo a bind moom ma jox naa ko sama xol jox naa ko sama lépp te moo di yàlla inni wajjahtu wajhi lilladi fatara alsamawati wal arda xanifan wa ma ana min al mushrikin mu ne inni man ibrahima wér na ni ki man wajjahtu wajhi jublale jubale naa sama pas-pas ak sama xol ak sama lépp lilladi jëme ko ci buur bi nga xam ne fatara samawaati moo créé asamaan wal ard ak suuf ma def ko nag xanifan ngir nam nam ma tegu rek ci yoon wu jub wa tegu ci siraatal mustaqim te kat wa ma ana déet man Ibrahima mii minal mushrikiina may bokk ci way bokkaale ñi wante mbokk yi gis bokk na ci ulul azm di juróomi yonent yi ëpp coono mu di yonent yàlla nuux di yonent yàlla isa di yonent yàlla muusa ak sayiduna muhammad ñeenti yonent yi ak ibrahima ñu ëpp coola coono moo taxoon yàlla ne yonent bi wasbir kama sabara ulul azm min ar rusul borom bi subhanahu wa taala moo wax yonent bi ne ko nettalil ci téere bi ma la jox sa naatongo yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku dëggu la woon daan dëggal dëgg te ab yonent la woon maa ko yónni wadkur fi lkitaabi ibrahima innahu kaana siddiqan nabiyya mu mel ni histoire bind na ni diggante mën lum yonent yàlla nuux ma ak juddu maam Ibrahim junniy at yu teg ñaar téeméeri at ak juróom benn fukk ak ñett dox na ci diggante bi junni at ak ñaar téeméeri at ak juróom benn fukk ak ñett dox na diggante mëndu yonent yàlla noox ba ak juddug suñu maam Ibrahim bu fekkente ni danga jël ba yàlla wàcce suñu maam aadama ci kaw suuf digganteem ak juddug suñu maam Ibrahim ñetti junniy at la ak fanweer ak juróom-ñaar. comme niñ ko waxee woon suñu maam Ibrahim tombe woon nag buur bu soxor buur bu saay-saay mu di Namruud Namruud wax nanu ci waxtaan wi weesu ne moo doon sëriñu na ndax moo doon modelam ci moom la na roy ñu niroo itam ay yëf mu mel ni bokon na ci bour yi nga xamne ne yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bour ñoo mas falu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yeneen ñaar ñi di yefer waaw benen bour nak bu dul ñenti bour yoyu ab gox rek nga yilif ci aduna ñenti bour yoyu moo di namruus ñuy wax ak ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñooñu ay yéeféer lañu buxtu nasar moom la sidi xaaji mali si di junj ci xilaatu dahab ci bi muy lim maami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy lim ay maamam ba àgg ci maat mu ne maat nag rawale woon nañ ku yóbbu ko Cham ku ñuy wax armiya moo ko yóbbu ndax boobu buur bu saay-saay bu ñuy wax buxtu nasar moo doon alak arab yi di seet ña baax ci ñoom mu rey leen kon mu mel ni caay-caay gi nekkoon ci Namruus nekkoon ci Firawun ba ñuy tànn ñu baax ñi di leen rey looloo nekkoon ci buxtu nasar mu ngi tombe woon nag jamono ak ku ñuy wax maat di maam ci na Muhammad moom la góor gi wax ne حمل معد لشام أرميا ذكر إذ بغت النصر في تدمير عربهم bu fekkente ni nag ñaan ñi nga xam ne ñoo doon way gëm ñi moo doon yenent yàlla suleymaan moom nguuram dajoon na àdduna ak zul qarnayn mi nga xam ne moo njëkk a def tour du monde moom la yàlla di nettali histoire am ci suratul kahfi دي واخ يننتي بينكو يسالونك عن ذل عن ذي القرنين يهودي نيغي لاي لاج استوارو ذي القرنين مودي الاسكندر لا غران يالا نتلي سوارم تي سوره كهفي واخ فمو جار اك نمو وري ادنا بي ييب يالا واخني تام ان مكننا له في الارض نيوكو جابندلون وون نيوكو جابندلون ci mu mën tukki di dox ba wër àdduna bi mu mel ni Namruus moomu moo doon fitna suñu maam Ibrahim ci ndoorte wooteem gisoon nañ ni suñu maam Ibrahim ci waxtaan wi weesu bi mu juddoo ndeyam daf ko jëloon yóbbu ko ci benn xunt wax nañ ni yaayam la njëkk a waxal ndax toog na bis rek ne ko yaay man kan mooma moom yaay ji ne ko man maa la moom man mii sa ndey maa la moom mu ne ko waaw yow kan mooy sa boroom mu ne ko xanaa sa baay sa baay mooma moom mu ne ko waaw sama baay kan mooy boroomam mu ne ko xanaa namrut mi nga xam ne mooy buuru dëkk bi mu ne ko waaw namrut moomu ku ko moom keroog yaay ji dafa tiit ndax kàddu boobu moom rekk moo ko mas a wax ci xale bu toll noonu yaay ji wax ko baay bi baay bi ñëw waxtaan ak moom Namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bàyyi kan mooma moom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko moom mu ne ko man mu ne ko yow na ku la moom mu ne Namrud mu ne ko waaw Namrud moom ku ko moom baay bi daal di tiit mbéj ko ne ko noppil wax bi nga wax bu ko génneeti ci sa gémmiñ fekk na boobu ñoom gëm nañu buur bi teg nañu ko barab boo xam ne ci wàllu sellal ñemewuñu woon a jël yenn baat yi di ko askanale buur bi donte sax buur bi moom tabarkàlla du yàlla du dara nit rek la comme ñoom waaye nit mooy gëme noonu dana gëm mbir ba nga xamante ni moo koy jox daraja daraja joo xamante ni sax la mu gëm amu ko moo tax ñu ne ànd nañu bis boobu suñ maam ibrahima xale la mu ngi ànd ak yaayam ak papaam ñuy dof ci àll bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay gëléem ak i gis ay jur suñ maam ibrahim daal di laaj bàyyi bi ne ko waaw bàyyi lii ma gis lan la mu ne ko lii ay gëléem la ak i jur mu ne ko fa ma li haadihi buddun min an yakuna laha xaaliq lii daal mënul ñàkk ne am na lu ko bind am na boroom kàttan bu bind yii may gis yëf yii may gis sama kanam daal jékkiwul jékk rek am ndax bàyyi xamuloo lan moo bind yëf yi bàyyi bi noppi jàpp njàmburam ibrahima ne alladi xalaqani fa huwa yahdini foog naa ni ki ma bind daal dina xëy bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak moom man daal ki ma bind ki ma créé defar ma moom rek laa bëgg a xam mooy ki ma yitteel moo tax fitna boobu ko dal gannaaw ba ko yàlla wane malakutu samawati wal ard mu xam-xam gu wér ne moom Ibrahima jaam la te yàlla ko moom loolu def na ci moom fitna ba taxoon ñu dajale mat pour namm ko alak mu mel ni taxan mat wax nañu ne ibnu isxaq nee na taxan ma weer la weeru yàlla waa dëkk baa ngi koy taxan pour fas yéene koo alak wax nañ ne asamaan jooy na suuf jooy montagne yu jooy malaaka yi jooy nee na nit ak jinne rekk muy ñaari way ndiji bopp yi ñoo lànkoon ñoom jooyuñu waaye kàddu asamaan ak suuf ak montagne yeeg malaaka yi benn kàddu lañu lanu wax moo di ne ay rabbana ibrahimu laysa fi ardika ahadun yacbuduka gayru ñu ne ko yow yàlla ibrahima day moom rek mooy fii sa jaam kaw suuf daal amul kenn ku la fi sujootal ku dul moom moom rek la gëm ñi ci des ñëpp xërëm lañu gëm ki caaxaan yaa ngi koy seetaan ñu nar ko lakk kon fa'dan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbali ko foofu ngay déggee iyaaka naabudu wa iyaaka nastain ndax yàlla jox na ndigal malaaka yi ne leen ku ci am ndimbal boo mën a dimbalee Ibrahima demal malaaka mi njëkk ñëw ci Ibrahima moo di malaaka mi yàlla dénk ndox yi bi mu ñëwee daf ne ko man la yàlla jox xadainul miyaa wal amtaar magasin ndox yeeg taw yi yépp man la ko yàlla jox kon yow Ibrahima jox ma ndigal ma fay taal bi ci ndox mi ma yàlla dénk Ibrahima ne ko aw ma aaju ci yow man ci sama boroom lay sukkandiku malaaka moomu dem beneen malaaka ñëw moo di xaasinu réex moom la yàlla dénk ngelaw yi malaaka moom bi mu ñëwee ci ibrahim daf ne ko fekk na boobu ñu ngi yeew ibrahima ba mu ne ngodd teg ko ci mbaq gi war koo sànni malaaka mi ñëw ne ko man kat la yàlla dénk ngelaw li su fekkente ne jox nga ma ndigal ma yëkkati taal bi sànni ko ci àll ba ndax ngelaw li dana mën dana mën ne doññet taal bi ñu taal ak li taal bi di rëy yépp jël ko sànni ko ci àll ba suñu maam Ibrahim ne ko awma ci yow aajo man ci sama boroom laa am aajo ci moom laa yaakaar ndimbal moo tax nit ki bu fekkee tawxiidam wér na fokk principe bu iyaaka naabudu wa iyaaka nastain gëm ne yàlla nga war a ci moom nga war a sàkku ndimbal waaw ak lu la mbindeef jege jege jege sukkandikul ci yàlla ba noppi bala ngay sukkandiku ci kenn moo tax suñ maam Ibrahim sukkandikuwul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuwul ci malaaka mi yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci kàttanu yàlla foofu la yëkkati loxoom jëme ci kaw ne allahumma anta alwaxidu fi lsamaai wal fi l ard laysa fi l axadun yacbuduk xayri mu ne ko yow yàlla yaay kenn ki ci kaw yaay kenn ki ci suuf fii nag ci kaw suuf amul kenn kuy sëpp jëm ci suuf di la jaamu kudul man kon nag maa ngi sàkku ndimbal ci yow yàlla nga ma xettali Ubay ibnu Kaab radiyallahu nee na ñaan gi suñu maam Ibrahima ñaan ndax maa ya'ba'u bikum rabbi lawla du'aa'ukum yàlla nee na loo baax baax baax doonte danga nekk ci mbaax nee na ñaan ma farata la ndax ñaan moo di yokku jaamu yàlla kon nag nekk ci dëgg rekk e, tax nga sàggan ne doo ñaan ab yonent musu ko ñeme ab wëliyu musu ko ñeme boo nekkee ci dëgg sax del ñaan yàlla jàppale la ci dëgg kooku del ñaan itam mucc ci pexeem noon yi tabarkàlla ak seytaane yi motax suñu mam Ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy woté wayé nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamné ñaan ibaada la Ubay ibn ka'b neena ñaan gi suñu maam Ibrahima ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal alhamdu wa laka almulk la sharika lak nee na ñaan googu la doon ñaan moo yàlla musal ko waaye dikk na ci xadis ñu ne ñaan gi mu ñaan ba yàlla musal ko ca safara wa moo di xasbi allah wa ni'mal wakil waaw moo tax e, ci ñaanu tam xarit e, ñu rafetlu ko ci xasbi allah wa ni'mal wakil bëri loo koy wax dana tax nga mën a mucc ci musiba yu bari mu mel nii kon suñu maam Ibrahima moomu fitna boobu bi mu ko nekk ci aw nitam yàlla dogal mu xat waaye jéem na lu mu mën pour jéem a baayam pour jéem a convaincre baayam pour génne ko ci lëndëmu kéeféer indi ko ci leeru ngëm loolu la yàlla bëgg a jàngal Seydina Muhammad loolu tax mu ne ko فتلكل إذ قال موم إبراهيم إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا منيكو فتلكل سما جامب باخ بوبو ني إبراهيم بموي واخ اك بايام واخ بو تيغو تي إبراهيم dafa gis baay bi gëm xërëm ba xërëm chronique ci xolam mu bëgg ko jàppale te baay bee ko jur am na pouvoir ci kawam ndax moo ko yilif ci wàllu deret waaye nag am na lu yàlla defal suñu maam Ibrahim te defalu ko baayam moo di nubuwa bi mu ko jox ak xikma bi mu ko jox loolu nag la ko suñu maam Ibrahima bëgg a baaxee moo tax muy wax ak moom ci waxu yar ak teggin ñaare ku dégg wax bi danga gis ne nekk ci dëgg warul tax ngay pamti pamte nit ñi foog na yaa leen yirif dañoo war a jub far la force déedéet yàlla sax daf ne woon yonent bi lasta alayhim bi musaytir yónniwuma la pour ngay imposer nit ñi di leen pamti pamte foog na yaa leen gën donte yaa leen gën sax bu leen ko wan moo tax Ibrahima wanul baayam ne ko maa la gën déedéet daf ko woo di ko laaye biir jëme ko ci mbaax mu wax ak moom ci wax bu tegginu ñeewantelal ko ak coxeel ak yërmande mu ne ko yow sama baay li ma taabudu maa laa yasma lu tax maa lam yëtik fattabicni uhdika siratan sawiya ko yow sama baay man yàlla baaxe na ma ci xeetu xam-xam lum la baaxewul kon nag nga la waay topp ma ma mën la orienté ci yoon wu jub wa yoon wa nga xam ne ku ca tegu juboog sa boroom ku ca tegu téere ji àjjana këru taraanga ba faw mu ne ko yaa abati laa taabudi shaytaana inna shaytaana lirrahmaani asiya mu ne ko yow sama baay nga la waay bul nangoo jaamu mukk seytaan bul topp sa bakkan ndax seytaan ku bëri lu mooy mooy boromam la foo fekk seytaane rekk ci mooy yàlla la nekk mu ne ko kon nag bu ko tànn xarit jëlal yàlla nga def ko sa xarit def ko sa wéeruwaay mu ne ko yaa abati inni axaafu an yamassaka cadaabun min arrahmaani fa takuna lilcheytaani waliya mu ne ko yow sama baay man kat ragal naa lool nga am mbugal mu tar mu jóge ci sa boroom su ko defee sabab ba nag moo di ne boo jàppee seytaane def ko mu di sa xarit mu mel ni kon suñu maam Ibrahim mu ngi jàppale baay bi di ko ñoddi jëme ko ci tawxiid génne ko ci shirk waaye baay bi daal dëgër na bokk mu mel ni boo dégloo tontu baay bi danga xam ne yàlla daal moo yor mbaaxam mbaaxu yàlla gi nag ah kum dul sa cër loo jege jege jege aji baax du tax nga baax ba mukk sori te jege am na nit mën na la sori lool nga baax nga jëriñ ko ci sa mbaax nit mën na la jegeñ lool nga baax te doo ko mën a jëriñ ci sa mbaax kon Aadara mii di bàyyu Ibrahim jege na Ibrahima lool mu di ab yonent bu baax bu yàlla baaxal waaye day li ko Ibrahima di yéene mbaax gi yépp tabarkàlla taxul nag mu war caa am moom daal dafa war a dee ci kéeféer déglul li mu tontu doom ji qaala araagibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya mu ne ko araagibun ant an alihati ndax yow ibrahima yàlla ji may jaamu danga ko bëggul danga ko bañ danga ko sib ndax yow Ibrahima da nga sib yàlla ji may jàmm ndax dangay fekk sa bàyyi gëm dara nga koy weddi te man li ma gëm mooy li wér kon mu mel ni kon baay bi ceddo bu tëx la waaw ceddo bu tëx nag du dégg dara mu ne ko la in lam giñ naa ne soo bàyyiwul kàddu yi nga may wax la arjuman nag danaa la sànni ay doj ba nga dee wala boog danaa la wax wax boo xam ne soo ko déggee da nga dugg ci biir suuf lée léeg way jur tabaarkàlla ko doomam ci wax ne ko am na loo xam ne su ma la ko waxee rek nga dugg biir suuf moo tax baay bi ne ku kon nag bëggatuma laa gis ak sama bët sori ma wax jur nii maliya soo mënee toog fukki at yu ma la gisul sax baax na bëggatuma laa jis ci sama kanam waaye kàddu bi li muy diis diis ci diggante ñaari soppe yoo xam ne yàlla leen boole ci wàllu deret mu di baay ak doom doom ji yàlla dogal na mu di njàccaar yàlla defal na ko mu am basira di gis leeruk yàlla gi xam lan moo di dëgg tegu ci waaye baay bi yàlla silmaxaloon na xol bi seytaane ca toog bëggul mu gis mukk dëgg gi léegi nag jub jubóowuñu ci kàddu wax ba ñagas na bàyyi ba mer na tëkku na ko ba sax nee na ko soo ma moytuwul danaa la rey kon nag sori fi bëggatuma laa teg bët waaye suñ maam Ibrahima bu fekkonte ne dafa nekk xale bu yaradiku dana dàggasanteeg baay bi wax ko moom itam kàddu yu ñagas waaye de na mu doore woon ak baay bi ci yar noonu itam tabarkal la la mujjeek moom ci yar alquran nee na ibrahima tontu na ci yar ndax nee na ko qaala salaamun alayk sa astaghfiru lak rabbi innahu kaana bi xafiya wa actazilukum wa ma tadcuuna min duunillah wa adcu rabbi asa an laa akuuna bi ducaai rabbi shaqiya ibrahima ne ko salaamun aleyk jàmm rekk moo mën a jóge ci man jëm ci yow duma la wax mukk lu ñaaw te duma la ko def yaay sama bàyyi yaa ma jur sañu ma jël kàddu bu ñagas di la ko teg mukk ndax wax ne wa qadaa rabbuka an laa tacbudu illa iyaah wa bilwaalidayni ixsaana yàlla dogal na ni kenn warta jaamu kenn ku dul moom waaye nag su fekkonte ne gannaaw yàlla war nañu jaamu nit kon doom moo war a jaamu waajuram comme nag yàlla moo wax loolu ne na nanu rafetal jëm ci waajur yi damay rafetal ba faaw ngir dabu barke ci yow moo tax mu ne ko salaamun aleyk jàmm rek muy jóge ci man jëm ci yow waaye kàddu bu ñagas du jóge ci man mukk jëm ci yow moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa ñaax na doom yi pour ñu wormaal seeni wayjur ndax képp koo xam ne yaa ngi wax wax bu ñaaw jëmale ko ci sa wayjur loolu daf lay jural alkande képp koo xam ne yëkkati nga sa loxo dóor sa wayjur yonent bi nee na boo duggee biir bàmmeel dégg nga maam dañ ne daf ne sax ku yëkkati sa loxo te jëmale ko ci sa wayjur te dóoruloo ko danañu la jëng ci sa biir bàmmeel chaîné say ñaari loxo su fekkente ni dóor nga sa ñaari wayjur soo duggee ci biir bàmmeel li malaaka yi di njëkk def mooy dagg sa ñaari loxo yi nga dóore woon sa wayjur ba noppi moo tax kon Ibrahima lii eh, baayam di nekk nekk yéeféer li muy nekk nekk jaamukatu xërëm tax na mu sàmm kàddoom ci moom ndax yàlla dafa fiir ci wayjur bëggul mukk doom di jalgati wayjur ci benn anam nag mu mel ni ibrahima wax na baay bi wax bu ñeewant ndax nee na ko sa astaghfiru laka rabbi innahu kaana bi xafiya danaa la jéggalul yàlla ndax yàlla kat ku baax ci man la ku am ñeewant ci man la lu ma ko wax rekk dana ma ko defal mu mel nii wax bii nag Ibrahima wax booba rafetoon na njort ci ne baayam mën naa wëlbatiku jóge ci tabarkalla kéeféer googu mu nekk jëm ci ngëm boobu rafetoon na ci njort moo tax boo demee ci shuara wax bi mu waxon mom suñu mam ibrahim ne ko dana la jéggalul yàlla jéggalul nako yàlla ndax bo demi ci shuara suratu shuara yàlla mu ko fay netali yàlla ni ibrahim waxna ak man ba waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yàlla yàlla nga jéggal sama baye ndax mom kat dafa bokku ci way sankuñi waaye nag ba mu demee ba leer Ibrahima ne baayam nag noonu yàlla la nee na ca la pare ca moom nag dañ ca moom ba jeex ca tàkk mel ni koon jégglu boobu ba Ibrahima demee ba xam ne baayam nag dee na ci kéeféer ca la noppi ca moom nag jéggalatula ko yàlla lu tax ndax xam na ni nitu safara la moo tax bul am mbokk mukk mu jege la dee ci kéefir ba nga koy ñaanal waaw ko ñaanal koo bokkulul diine ngay jullit moom muy leneen moo xam yahud la wala nasaraan la tabarkal la wala muy ku gëmul woon dara su génnee àdduna bu ko ñaanal boo ko ñaanalee yaa ngi def bàkkaar moo taxoon nag Ibrahima ne kon daal bàyyi ko mbir mi nii la deme danaa toxu nag beru leen bàyyi leen ak seeni xërëm man ma dem wéet sama boroom mu ni maa ngi ñaan sama boroom amaana li may ñaan sama boroom yàlla dana ma ko defal wante waxtaan doxoon na diggante suñu maam Ibrahim ak buur bu bon bi ñuy wax Namrud moom borom bi subhanahu wa taala di wax ne alam tara ila alladhi haja ibrahim fi rabbihi an ataahu allah almulk إذ قال إبراهيم ربي الذي ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين مني بورب بون بي دي نمروز او نيتم دار نانيو كو سلالال ديكو ماغال ماغال بو جيكي دايو بسخ موم ظن انه قد خرج عن طبيعه البشر من فوق النسخ ديمون نبا فوق ني موم nekatul nit waaw moom demoon na ba foog ne moom nit ñi ñooy nit mais moom leneen la ndax fi aw nitam tegon ci wàllu sellal ak nañ ko daan taxoon mu mujj fuuy daal di bew nee na bis nag organisé na benn waxtaan digganteem ak suñu maam ibrahim waaye boobu yàlla nar na ndax boobu yàlla na mën a feeñal manqué manquéem ak doyadeem loolu taxoon bi nga xamante ni dàgg boobu am na diggante buur bu kàccoor boobu ak suñu maam Ibrahim ca xikma ba ko yàlla defal ak kàddu yu jekk ya moo tax ibnu ak ibnul athir mu ngi wax ne Namruus dafa wax Ibrahima ne ko waaw yow sa yàlla bi ngay jaamu di woo nit ñi pour ñu jaamu ko mooy kan suñu maam Ibrahim ne ko mooy buur bi nga xam ne moo am kàttanu dundal te dundal moo am kàttanu rey tey rey Namruus ne ko man am naa kàttanu dundal te damay dundal am naa kàttanu rey te damay rey Ibrahima ne ko wa kayfa dhalik loolu naka la mën a nekk mu ne ko axudu rajulayn qad istawjaba alqatl fa aqtulu axadahuma fa akunu qad amattuhu wa afu an al axar fa akunu qad axyaytu mu ne ko damay jël ñaari nit ni may reyee ak ni may dundale moo di ne damay jël ñaari nit ñoo xam ne rey ci ñoom su ko defee ma rey kenn ki ka ca des nag ma jéggal ko ne baal naa ko kon nag ka ma rey naa ko ki ma baal kon maa ko dundal kon kële dee mana kii ma bàyyi mu dund mana kon dundal na rey na Ibrahima ne ko inna allaha yati bi shams min al maghrib fëti biha min al maghrib mu ne ko sama boroom dese na beneen kàttan ndax yàlla mooy jëlee jant bi penku di ko yóbbu sow bis bu ne léegi nag dama bëgg yow ci tàng-tàng bi nga indi jant bi jëlee ko penku yóbbu ko sow foofu nag Namrud amatul lu wax mu wedam ne tekk mbooloo ma taxawoon yépp xam ni nit la comme ñoom mënul dara du kenn waaye nag ragale nañ ko xel moo taxoon ñu bari ci ña fekke woon ba ñuy lakk suñu maam Ibrahim ca safara wa ak ña nga xamante ni fekke woon nañu waxtaan wi dox diggante Ibrahim ak Namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu ànd ak suñu maam Ibrahim Ibrahima alayhi salaam xajatul ci dëkk bi lu tax ndax ñi fi nekk bokkut ak ñoom pas-pas bokkut ak ñoom gis-gis dañu tilim dañu taq dañu sobewu mu wara gaday nak jóge ci dëkk bi dem moo tax lama daqat hayat bi ibrahim ma haula al maa haulaai alwathaniyin aljaahidin فر بدينه منتقلا من مكان إلى مكان فرحل من العراق إلى فلسطين ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يني سنو مام إبراهيم بنغا خمينتني nga xamante ne yàlla musal ba ñi ko gëm gëm ko ñi ko topp topp ko nee na te mu dañtalu ci seenu tabaarkàlla seeni xërëm ak kéeféer ga ñu dëkkee ak shirk ba nee na ca la waxe ne ana buraau ana buraau minkum wa mimma taabuduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nañu wicc ci kéeféer gi ngeen nekk ñun weddi nañu lii ngeen dëkke ñun daal dëtmal nañu yàlla mu di borom bi ñu war a jaamu moo tax ñu ne ci la génn nag war a gàddaay mu jóge iraq mu di iraq jëm palestine mu ngi àndoon ak soxnaam bu ñuy wax saarata ak benn doomu frère bu ñuy wax Lóot